pétrole bi ak gaz bi Sénégalais yëpp ñu ngi def seen xel ne Sénégal am na pétrole ak gaz dinañ ci gis ñoom seen yokkute loolu naxee mbaay la ndax tey gis gisuñu ñun ci suñu jàngat lenn loo xam ne le président Macky teg na ko ci jéego boo xam ne su pétrole bi ñëwee dina tax indi yokkute Sénégal te pétrole dama koy yàkkam dama koy fàttali pétrole du ressource boo xam ne du jeex ba abadan nekkul par exemple comme Euh, énergie solaire énergie solaire tant que jant mi ngi fi am dina am énergie solaire pétrole mel non. moo tax ñu tuddee ko énergie non renouvelable suñu pétrole bii ñu am mun na doon fukki at mu jeex mun na doon ci ñaar fukki at mu jeex mun na doon ci fanweeri at mu jeex am na tey ñu amoon pétrole ci ay réew yoo xam ne tey seen pétrole jeex na tak bon ñun comme xamuñu. pétrole bi ci ñaata at lay dem war na ñu fagaru ba nga xam ne su jotee ñu war a mun a seet naka lañ koy doxalee loolu nag moo amul ci réewu Sénégal amul benn structure boo xam ne benn jéego boo xam ne président Macky Sall teg na ko bu ñuy wan ne suñu pétrole boobu su ñëwee ñun ñii sénégalais dinañ ci jëriñ amul. kon loolu moo waral conférence de presse pour may fàttali waa Sénégal pour may yee waa Sénégal ne bu ñu def comme Ghana bu ñu def comme Libéria bu ñu def comme Tanzanie réew yooyu ñooñu ëpp pétrole ba seen pétrole feeñee seen gouvernement yi dañu dem di jël ay bor yu bëri parce que dañu ne su pétrole bi ñëwee dinañ am luñ ko fay. ba pétrole bi ñëwee ba egsi ba ñu commencé ko produire xool nañu ne seen boor yëpp pétrole bi moo ko fay ba koom-koom bi nga xam ne yaakaaroon nañ ko ne dinañ ko gis ci ñoom dara la gis loolu moo waral tey jii Ghana soo xoolee gana tey jii dafa dellu ginnaaw problème économique te Ghana ñoo ñu ëpp pétrole Tanzanie ñoom ñoo ñu ëpp pétrole. libéral, ñoom ñoo ñu ëpp pétrole mais tey jii benn ci dëkk yooyu doxul moom la wax malédiction du malédiction malgérance parce que pétrole bi bi ñu laata ñëw amuñu benn structure boo xam ne tëral nañ Tchad rek moo ci sauvé te Tchad li leen sauvé mooy que banque mondiale dafa ñëw gérer leen seen pétrole mais tey jii ñi ñuy jël xool leen gouvernement boo xam ne ñu ngi génn ci ay scandale scandale bërki dem ñu épinglé ay ministre épelé nga ay DAGE épelé nga ay directeur épelé nga lu nekk mais léegi ay administration boobu ndax ñun ñu mën a gérer suñu pétrole moo tax Macky Sall dafa war a dem dafa war a dem parce que yoreetul réew mi ñi nga xam ne moom la ñu yaakaaroon en tant que chef d'état alors lii moo waral ma def conférence de presse d'abord di ñu def wax ne euh, le désespoir de l'attente le désespoir de l'attente mooy lan mooy dañuy toog fii rek di xaar dina ne bi léegi mu ñëw ku ci nekk yor sa projet bokk ko wala njëgënaayu si su projet bi ñëwee dina am pétrole bi ñëwee nangam nangam pétrole bi egg si ñu leen di lay guddi ak bëccëg fii la jaar lële lañ ci defar te déjà dañu xamul ne pétrole bii feeñ ñun balaa ñu ci lekk dërëm ña ko feeñal.

L'ICDES, le président Burki 20% l'indien. Imaginez, 20%. l'ICDES taxe mais non, non. Quel doux négocier non le pétrole Pétrole, ce qu'on négocie, d'avoir taxes, taxe qui barils baril de pétrole. Parce que nous n'avons pas de contrôle. Nous commençons à produire pétrole. Nous avons dit que nous des contrôles. Nous avons des de Nous le foule.

mais eh, pétrole bi estimé 1 million de barils 100 millions de barils 100 100 millions de barils 60%. ñëwee soixante les... ci réew nous devons négocier le pétrole donc nous, nous avons pétrole Si nous su nous dinañ jox pétrole 10% dinañ jox a kan euh,

jëriñu si pétrole moo tax bu on n'a pas une administration ici au Sénégal aujourd'hui qui est en mesure de gérer les les les revenus du pétrole amaguñ ko du SAR du ITIE d'ailleurs ITIE man maa indi Sénégal man maa man maa leen fi indi jamono ji nga xam Ousmane euh, Cissé directeur géologie ñun ñoo njëkk a introduire ITIE au Sénégal yóbbu ko président muy soog a it is donc lii lu sénégalais yi war a na beneen bi mooy li nga xam ne tey jii mooy suma préoccupation préoccupation mooy jaaxle damaa jaaxle fii ni président yore réew d'accord vous allez me dire dix ans yaa ngi mel moom loolu laa bëgg tamit ma leeral ko bu baax dix ans nekkuma ministre de 10 ans nous euh, direction 10 ans ken mon ministère 10 ans dañ ma né dinañ feuille de mission nous avons suma conseiller 10 ans yi ma def dans le cabinet du président Macky conseiller là té suma conseiller qui ci mine énergie l'agriculture et environnement

environnement avec agriculture avec les sols dix ans yooyu yëpp man loolu modon, me suma priorité président dafa am chef de cabinet politique am un comité politique am un entourage politique beaucoup ci Il dafa am des conseillers économiques en économie di a ak di leen laaj bokkuma ci président dafa un conseiller conseillers qui ak ci la ma doon conseiller mooy li ma yàlla may ma xarañ ci te loolu weesuwul lépp loo xam ne jëm na ci suuf ak ndox ak environnement ak énergie te yaakaar naa ne suñu demee ba ca kanam lu ci nekk ci la ma ko doon xelal mun naa teg suma baaraam ne leen lii laa ci def lii la indi tey gis ngeen ko Sénégal mu ngi ciy jëriñ loolu laa doon defal Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade conseiller naa ko li tax ma tàqali ci conseiller Abdoulaye Wade mooy ba mu dàqee Macky Sall mu doon suma xarit ñu jàngandoo màggandoo ma ànd ak moom ba mu ko dàqee laa ne Abdoulaye Wade mënatuma la conseil boobu maa ngi États-Unis suma laboratoire maa ngi woon euh, université d'État de la Caroline du Nord di def recherche di jàngale di jàngale Japon la première fois bi ma dajeek Abdoulaye Wade Japon la ñu daje japon lañu daje may joxe cours qui université bu tudd Okayama Boutoudou bu tudd Kuraj Kurashiki ci Okayama la nekk bi may joxe cours di def ay ay ay conférence ñu sommes ma ci journal télévisé Japon boobu mu coïncider ak Abdoulaye Wade au Japon à Tokyo mu madame Bey, qui est sénégalais la may nous, mu ne ko waaw Arouna Coumba ñu fexé ba wooma à 11h suma hôtel hôtel Grâce à Okayama ñu mu ma président mo la invité pour nga ñëw Tokyo ma ne ko mënuma ko parce que damay joxe ay cours suba boobu maa ngi def suma cours saisonnier donc du ma ñëw mu wax ko président woowaat na ne ma bon nañu dajé New York effectivement ba date ba joté le 4 décembre. 2004 Abdoulaye Wade venu à New York and ak ngeen si yàlla suma xarit Alioune Badal Cissé yàlla na ko le yërëm avec Karim Wade avec madame Bey. Ce que je veux wax c'est yow Arona comme ma professeur tu fais le tour du monde pour nekk dégg naa la fa ngay joxe ses connaissances mais à la fin de la journée on va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour le Sénégal C'est ce que je veux dire. La question que nous sommes posée, au niveau international damay joxe retraité au Sénégal